맞아, 원본 비교 시켜라. Et d'où vous êtes engagé D'où vous êtes engagé Ouais, mais vous savez que. D'où D'où, mooy sëñ. ah wax na sëñ bi. non non de dafa nag. nee nga dugg mooy sëñ. ah léegi lu tax mënul utiliser sëñ bi. mais c'est la même chose. ah sa góobee sa sa góobee mais ça sa góobee jur. voilà la même chose. ah pour ma de sëñ. ah c'est pas la. c'est la même chose de. dulu kayak teman mais kii moom ci rubrique am rubrique am moom li ma wóor ma wóor ma mooy ñi il attend à tout. menace boobu. d'accord ah man moom bi ma bi ma bi ma bi ma toogee sama kër di ko seetaan man yenn saa yi nga xam ne boo ko boo boo ko di boo ko di boo ko di rubrique yenn saa yi menace menace menace day wax ba jàng ma daaw génn léegi tëj buntu bi dem sàmm foofu moom maanaam dégg naa wax yu wax gën a garaaw yi jiw ah, ak ci contexte bi ko waxee quoi maanaam woo doo sànni sa góor xam nga sànni sa góor garaaw eh, eh, mais contexte bi muy waxee contexte non non waaw justement contexte bi muy waxee moo tax nag dugub bi day ñaaw. <laughs> bi laa ñaaw. ñaaw na xale. non xale la ñaaw. non ñaaw. dama war a expliquer affaire pour lan la. yaa ngi dégg comment comment comment. affaire ban affaire ban pour ñu war a jógee. affaire ban affaire non. waaw non affaire ban bi nga wax ban affaire bi nga wax. non c'est un truc là montagne du chocolat dedans xam nga. waaw loolu. bi bi ñu nekk ci benn récipient bu ndaw benn affaire. waaw waaw waaw la nekk ñu ko waaw loolu mën wax bu ko expliqué. waaw soo nekkee. et puis Aliou Sow je lui demande Aliou Sow ñam ma ne ko ne mu ne ma. waaw je comprends et puis baaxati si moom si yàq. tey yaa bu ma léegi loolu su ma expliqué la boobu ma expliqué ko. non xaw ma. man kay xamal nañu ma lu ma xamul. waaw d'accord maanaam. waaw d'accord waaw d'accord man xam naa lu ma xamul. suba teel la ñuy def de. waaw non ba tey. du guddi de. waxuma kilifa yi la ay mag lañu grave mais xale yi quoi. xale yëpp yaa ngi nekk. waaw léegi léegi aywa ah, ku ko bëgg a jënd léegi pour xam parce que quand même da da day. man ñu naan ma day animé. commerce bi du jóge te bàyyi naa ko moom laa bëgg moom laa doon wax dara loolu dangay ma nee naa ma dañu ko soxla guddi ba maa ko bàyyi naa ko ñaar ma yóbbu ko yàlla. loolu guddi moo tax dama fay rek. non encore boo du ko expliquer pornographe la ñuy def. non non dafa am nu mu koy waxee rek. ñu wax bu simple xam nga ne voilà lii nii. xam naa sax. dafa expliquer pour la dafa expliquer pour la dafa dem marché jëndi ko. may ba baax la baax na. expliquer pour la ak yéen. comme boo expliquer normal. waaw normal. dama dama naan. waaw. ba dara desulee lu ñuy sangu ba nga war a tëdd ak sa jëkkër ci kaw lay nga jël ko rosa ba def ko sa biir ko lekk ba sa duñ bi dox dox loolu nga jàppaaru sa jëkkër loxo yi seet. ça je suis d'accord parce que dafa am koo xam ne moom moom xëy na dafa bëgg jëme dafa bëgg wóor. ndax réellement loolu la ah réellement noonu la da nga koy diw sa biir loolu nga diw ko sa boy jëkkër. waaw voilà te te loolu lañ wax. sa jëkkër la wax. xam nga boobu du ma ko def laa doon. yaa ngi dégg dégg nga. lip lèvre waaw ah. avant ngay tëdd ak sa jabar ngeen di couché nga def ko lip lèvre ma defal ko lip lèvre même am na benn yoo xam ne dañ koy partagé dama la koy sexal sexal ko sama bi ñu aj ko ci teer yoo xamante ne maa ngi xam moom man ñëpp ñëpp a wax Aliou Plateau man sama yaay moom moo desee ci àdduna dama ko rus daf may seetaan danga xam loolu la mais am naa bàgg yoo am naa nen yoo xam ni da nga jël sa bopp yoon. waaw maanaam jaarul mais jaarul mën nga ko fi indi. yooyu dama rus yooyu. waaw mais jaarul bi dama yooyu dafa am yoo xam ne mais jaarul bi. nit ñi ma ci duggee man day am naa sabat rek am naa sabat rek ma ci duggee rek rek ah ah. ah. jaarul. léegi yoo xam Se conduce para fue con una y muy va ya de una cosa. Dei vibre. Ente por. Come ho sai la montagna a chiave. No. Da questo la chiave. Ne già nei canali. Non sono ti dato. Non vuoi la montagna. Ma come in vibre va. Va. Lei lei da bene risalto. No, lo bene. Se parla venuto. Bello bene.

yow ni ngay sa yaram tàng ak laaj yi booy développé. waaye su ko yàlla coono yow da ngay nekk sa domaine nu nekk sa domaine am. ma sujet yi benn moom yaramam bu tàngee ci plateau bi day waxtaan sa télé plateau bi. foofu laay waxee. day la bootee. man pédagogiquement rek laa doon waxee quoi ñi ngay jàngal ñi lay seetaan nan fan la war a jaar sans exagérer pour wax leen li war a leen

Moi, je parlais du coup parce que je Après, moi, j'étais choquée quand tu m'as dit, bah, je ne suis pas, je vais voir ici. Non, en réalité, mon euh, goût, goût, ah, goût, ah, ah, goût, eh, Après, maintenant, elle est sortie de euh, hein. elle est beaucoup à Non, c'est ça tu vas là, tu vas là. C'est ça. oh, mais on oh, bébé. Eh, c'est Jabaram, eh, tu No, allumé, allumé, allumé, allumé. Wuy ma. Xaw ma sama yaay may na may na l a y na. Allumé, allumé, allumé, allumé. Sama yaay i may na may na sama yaay i may na sama jabar kii a l o a l u m a tudd ànd b i ndaw y o a y u Waaw ak c i u r a i a y Waaw bu ci xam dara mais allumé i bu ma i yërëmul doo nit de. Mu jël ko mais Ali i sa jabar mu ngi w i o n ak sa ci a h e m i n é e bi. a Non, allumé. Allumé, allumé, du d a l de. a e suis v e i u d a i s m a n salon. m i sotti ko. a h e m i n é e xam nga i a h e m i a n é e pour t i n g a l salon bi. Waaw. bu sotti ba ci pour mu xëy. cuuraay bi yëpp. non alal du lépp. waaw ay solo tax ñu ñëwaat si rek mais dafay sax pour elle elle savait pas. toujours seen kër xëy na leen. alors ci kaw lay jàpp. mais ay c'est ça moo tax moo tax moo tax xam nga moo tax moo tax xam ne il faut que comprendre ko. moo tax il faut que comprendre ko. xam nga àll boo tax soo leen ko yërëmu rek da ngeen xamoo leen li xew. mais li si des mën na kii nii rek si ñu leen est ce que xam nga ni Saal bi sa débris bi est ce que xam nga ni jaar yëpp Saal moom yor na ko. dégg nga sa caméra rek sa caméra bi. et puis bu dee ko. Aliou Aliou il faut nga am jabar Sénégalais jabar Aliou. Aliou Aliou je te conseille je te conseille il faut nga am jabaru sénégalaise te booy takk jabaru sénégalaise na nga na nga na nga takk lawbe wala géwél. lawbe da lay rey lawbe. dégg nga parce que comme ça nga comme ça li nga rëcc lépp nga mën ko rattraper. non non lawbe da lay rey say fan lay. non lawbe baax na lawbe. non say fan lay kii. lawbe say fan lay non xam nga nag xam nga paa bi. mais xale yi xale yi ñëpp a joŋe na. dafa dafa am benn dafa am benn paa dafa takk. xale yi yow dina tubaab bi dafa takk quoi xamutoon affaire bi lu xew xamu ko bu takk. mais xale yi ñëpp a tudd naa loolu dafa wax yow ma rafetlu. waaw waaw ñu ko joŋe gi. mais joŋe moom il faut nga il faut nga jàngat bi mu mën. dama xamoon ni ñu koy defee que ñi ngay ñi war a xam am envie toog di déglu munaas il faut que mu waxal ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu mu leen di dafa tuuti seen yaay seen ñëw teg affaire yi présentation ci tabax ci wax ci jeex moom techniquement waxul waxul waxul affaire mu dem moom moo war a xam lu muy wax parce que muy jàng il mu il mu xam li mu parce que nit ñi aussi am ça va vite dans dix minutes la xaw ma quinze minutes. mais loolu loolu il faut mun a sinon jàngale bi ñu bàyyi. il faut mu préparer wu ci yooyu xam nga loolu daanaka daal su ma def yenn sujet dama daan ñëw di laajte wax bi yenn wax bi danañ koy waxee ci. nga préparé wu ci pour pour que ma bañ a ma bañ a offensé. bu nga waxee ci olof bi daax bi ñu dama xamul non nag dafay am mais olof dafay am. suuma ñaari ñaari ñaari. mais wax wax ci quoi. voilà loolu même monsieur Fra am na. am na kër su korom la ko. olof dafa am ñaari kii. korom la kër su colonel. benn benn tu vois sa comprendre nga. mais olof day am souvent ñaari ñaari signification. comme ba nga ne saw. xam nga tuuti ndox ma non awra lépp la en réalité. boo expliqué nii naan ko lii ca awra la rek. awra non bu dee bu dee awra. awra non léegi awra ak sexe non mu koy expliqué nii naan naan lii nii. li ko li ko lenn rek lañ mën lenn rek lañ mën bu dee ci bu dee bu dee ci lu jëm ci parti intime nga bëgg koo wax ci olof lenn nga mën mooy utiliser baatu tubaab wala utiliser baatu arab bu fekkee bëggoo offense bi parce que olof ko diaboliser nañ ko ci côté ba pare ah, soo ko waxee mu ñaaw xam nga tubaab su nee sexe du grave soo ko waxee ci olof lu gaaw parce que ñun loolu defee ko ci suñu mantaan ba pare. Ah, non mais sexe am na nag mag yoo xam ne. ñu ngi bay man seetaan naa déglu. bay seetaan naa jaar seetaan naa ci télé bi ak ci rajo Bretagne xam ne di ko wax parce que boo demee ci téere lax dëri soo demee buñ lay jàngal boo demee ci bunt bi nga xam ne dañ lay jàngal kañ nga war a sangu faat boo demee dañ la la maaribul safaxati fil farjir buñ la koy tekkee dañ la ko wax carrément ci olof dañ la dañ la sa sa sa sàkkara bu tegoo ci ci buntu rek sangu war a suuf. waaye léegi kii mënut tudd sax. boo demee ci fii bu lay jàngal yooyu dañ la koy wax carrément. ah sax su dee ñaar lépp dañ la koy wax dañ la koy wax mu leer. am na man ñoo xam ne sax boo demee tey tey wala wala suñu wax duñ ci am dérangement. parce que doon na ko jàngee ci fekk téere bi noonu la ko ëndee xam nga lu lu charia indi noonu alxuraan indi ko noonu. xam nga yow par exemple ñun xëy na ñoo bëgg a def suñu bopp ak suñu kii yàlla moom gënuñu ko gënuñu ëpp ñu ko si jóge ci làmbaati noonu. Ah, waaw kay wax mënoo wax waxaale yàlla yow mënoo. ah non mën naa def jóge. maa jóge liggéey gaa sax jóge mën naa naa génn ci ay fere ay ñëw ay ñëw laayanteeg yooyu mën naa si. wala ngeen jël jóge bi jox ko man ma jël sa revue bi d'accord. déedéet ba tey non nekk na ah, waaw waaw waaw d'accord léegi. en fait man xam nga moo si gënoon waat waat waatu Aliou Sow. Aliou Aliou Sall waatu Aliou Sall bi nga jël rek maanaam Wah, buku. Waaw bu da nga naan d'accord naa. waaw waaw kon daganal quoi. waaw yéen ñàkk wax bi ngeen bëgg comme ni nga waxee ngeen bëgg bañ a daganal. non premièrement non Aliou Aliou Aliou Aliou xam nga lan la waroon def moom waratul la jël alxuraan bi ci waat. mais yéen sa alxuraan non man rek man rek man rek Aliou non man rek Aliou man rek moo ko wax bi xam nga parce que nit nit doon jullit. waaw nit quoi nit quel qu'il soit.

l'unité euh, lu en tant que parce que nous organisé principalement

boo koy def waa ci yàlla war war waroo fen. Aliou Aliou n'est-ce pas Aliou Sow. waaye nit ñi dina ko def di fen. Aliou waaye nit ñi dina ko def aussi te du fen. Aliou ah, Aliou maa ngi wuy ma n'est-ce pas peuple sénégalais. mais loolu su ñoo nekkul su ñoo nekkul ci loolu. n'est-ce pas peuple sénégalais la ñu. parce que li mu ne mboolu am moom ma jaaxal. waaw loolu dëgg la waaw Aliou Aliou wax nga ma baax da ngay tamit foofu laa jëm. foofu laa jëm mais loolu ay ci ay waat la koy prouvé Aliou Sow. waaw waaw waaw loolu nee na fa la jëm ko. Aliou Aliou. waaw Aliou Sall dañ ko tuumaal ne ko da nga jël nangam loolu ñu ne dañ koy jël wàllu justice teg ci loxo commencé ko jàmbaar ndax am na wala amul quelle que soit la justice mooy indi mooy indi résultat final kon loolu li ñu. ñi ko ko tuumaal ay wujj lañu. ah wujj wujj bu loolu la nga ne ah, bu leen bu leen sëlëm ah, ah. doo seet.

intention. D'accord, Non. Et si l'intention, c'est justement de se victimiser, les Sénégalais, D'accord. Dans l'hypothèse où l'intention, c'est de se victimiser. Mais et dans l'hypothèse contraire

non non bon je sais pas dañu apporter quelque chose ah. mais mais non non pas samedi aussi dafa ëpp man li ma wax xam naa. Ah, xam dañ koy remarqué ah man boog su ma toogee sama kër. di ko seetaan man dinaa xam ne garaawul te ñu bëri dina. mais nag je suis euh, kii. Euh, xam nga ne suñu toogee ci plateau bi ñu ngi leen di. man stratège

non lu leer laa la wax loo xam ne il faut nga toogal leen duñ jógati bu ñëwee ba gis xaj duñ jógati bu xaj bu toogee di xool xaj après nga waxaat ne loo xam ne moo leen di téye xam ne dañuy émission moo leen di gën a intéressé dootuñu xool ñeneen parce que damay concurrence aussi damay xeex de. mën naa juum mën naa sax juum ci ay mesures ëpp naa ko ëpp peut-être naa ko bañ a mën a mesurer mais lu ma def rek euh, Cheikh bi. ni muy waxee baatam bu mag bi dafa absent tuuti ma bëggoon ko équilibrer en rajoutant un tout petit peu mais sinon j'aurais peut-être pu bon voilà et puis comme moom mooy animatrice principale bi ak yooyu et cetera et puis comme moom mooy xale leer <laughs> mention spéciale Alice il a raison mais mais des fois dafa ci baax na ah, xoolal li day toog par force loolu moom wax yàlla mënu ma ko sall bu defee kanamam bi am na ko muy waaj a def war na yàlla gis nga bu defee kanamam bii maa ngi ko naan au suivant charge bi topp li mu war a génne. kon ba tey lan laa def. artiste nag. man. man Diouf. man chaque jour bi amal les mêmes questions wax naa la ko bataay les mêmes questions. waxal artiste bi dix minutes te artiste bi du wax mu jëm ci musique. familiarité ak familiarité affaire bi wax musique la gën a soxla moo tax ñu ngi ñu waaw ne pas yaayam magam rakam tantam école am amoo temps ko bu fekkoon da nga mbéy mi ne la yaa tàkk si d'accord loolu moom tëb mu ngi doon def benn daal benn am benn bés comme par exemple fii par rapport ak ay frères am ndax moo ko indi ci musée bi wala mais basta ndax après ñëw vraiment ci musique. benn pàcc bi laa ko war a indi affaire bi xam nga mu jeex. donc en fait ah, parce que yaa nga tey clip bi déjà teg nañ ko avant avant clip bi tey ñaari yoon. clip bi xanaa sa tool yi moom laa teg avant muy ñëw installé wu. damaa ko. warul warul ñëwaat. parce que moom benn benn clip la. benn vidéo wax na ko sax ci biir ci émission benn vidéo.

nekk xam naa ne benn clip la mais en général moom. loolu laa wax en général day teg benn clip boo xam ne bokkut ak artiste bi. non non loolu ci pause ci pause bi lay doon. bu fekkee artiste dafa war a toog ñu war ko installé. dañ jëngal bi loolu damay teg benn vidéo peut-être bu artiste dafa am ñaari vidéo damay teg clip bu yàgg. ñu teg ci biir ci biir rubrique bi ñu dugal clip bu bu kii bu bees bi. comprendre. léegi loolu waa ji posé la question kon xëy na li ñu ci wax lu jeex donc bu la continuer. mais côté musique bi laa doon laa doon yëngal. xam nga waroon profité def ñëpp bi. temps bi ñaar amoon na le temps. prochain cas loo ci baax. ñëw nañu gamal. gis nga. des fois en fait su fekkee mën naa am quelques jours yi euh, comme ça bu may toog bu gars yi di wax des fois ma jeté comme pour deux jours. parce que amul temps. deux temps dama doon laaj benn kii bon xam naa ne après li mu amul moo tax quoi mooy. Euh, xam nga problème bi. mais yëpp nooy par exemple. loolu am problème. loolu par exemple nii nii booy commencé kii. waaw booy commencé seen esprit critique. waaw avant nga yéeg. dama koy yéeg dina fekk ngeen pare. waaw dinaa koy yéeg waaw non c'est juste rek. nii nii ba ma ko waxoon man.